mën waa xam yoon waa ko gën daas bu nekk pexem waaye wasaare ma ngeen yuri kuudu ba léegi làqu leen boobu saakul tabaxoo ko toj ko mën na laa jafe wasaare TV xoolal bu baax boobu saakul tabaxoo ko toj ko mën na laa jafe Wassare TV xoolal bu baax moo tax na kenn du leen tee da ngeen di dem ni naa leen macha allah da ngeen di dem kenn du leen tee da ngeen di dem ni naa leen macha allah da ngeen di dem ni naa leen macha allah da ngeen di dem. aca jërë ngeen jëf ci taamu bi ngeen taamu seen site bi di wasaare célébrité gannaaw ba ñu leen nuyoo ziar leen bu baax a baax amaat mbégte ak kontaan te jàkkaarluwaat ak yéen comme ça su nekk ni ñu koy defee ci seen émission Sama Star nee naa la nag Sama Star nii la koy defee saa su nekk dañuy dugg ci kër yi xool xale yi nga xamante ni tubaarkàlla macha allah bokk nañ ci aar bi ñu daal di leen génnee wone leen ba Sénégal yëpp gis leen tey nag ñu dalal di Daouda di woykat boo xamante ne nii yaakaar naa ne réew mi fu mu nee dar mel na bi muy ñëw embouteillage bi bëri na ci yoon bi ndax ñëpp ko tegoon ba tax photo yeek yooyu sax xaw na cee bëri ba mu ñëwee sax am na ñoo xam ne si wasaare bi moo du Sène moom daanu na fi boo yóbbu nañ ko ndax daakaar naa ne waali la ko tegoon Daouda nuyu naa waaw maa ngi lay fay Adja Mbène. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant alhamdulilah naa bàyyi nga nuyoog mbokku internet wasaare célébrité. waaw salaamaaleykum. Hmm. waaw salaamaaleykum àdduna. Hmm. salaamaaleykum Sénégal ah. Hmm. salaamaaleykum àdduna bàyyiwuma kenn. mag ndaw góor jigéen ah. d' accord Daouda tey ñu am mbégte ak bu baax a baax dalal la ci li nga xamante ni moo di sama star comme ni ma koy waxee saa su nekk seen mbégte rek mooy doon suñu yite ba tax dañuy dugg si kër yi ngis ñi nga xamante ni tubaarkàlla macha allah mën nañ lu ñuy def ñu génnee leen wone leen tey nga dugg ci li nga xamante ni moo di musique lan moo la ci dugal. waaw gannaaw bu ma la siyaaree waatee tamit mhm. ah, encore di kontaan ci yéen surtout. parce que tamit lii yembul te tamit ku nekk xam na ne sàcc ndënd yomb na. dëgg la mais fa nga koy tëggee moo jafe lool lool lool lool. Mm-hmm. waaw musique nag li ma ci dugal moom du dara mooy bu ma ñemee yoon bi daal Papa Thione ci la. Mm-hmm. ci li ma mën a tënkee wax ji. Mm-hmm. bu ma ñemee yoon bi ba bëgg musique Papa Thione grâce à Papa Thione. waaw moom gën na ci bokk li tax ma bëgg musique di def musique. waaw. d'accord kan mooy Daouda Daouda ndax jàng na école wala. waaw Daouda Balago nag moom jàng école tuuti tuuti rek ah. Mm-hmm. comme fi gars yëpp bàyyee comme li gars yi wax classe naante noonu la demee. Mm-hmm. à part li nga xamante ni moo di musique bi ci lan ngay yëngu. waaw man nag euh, tailleur la. damay ñëw. Mm-hmm. d'accord ñu gis ne TikTok bi ñëpp bu ñu la xamee maanaam commentaire yi si suuf tax dañ lay bind ne la daaw war a ma woyu papa coon boobu léegi inspiration boobu fan lay jóge ah waaw mooy li naan nit ak mu bëgg rek. Mhm. xam nga doomu aadama moom boo ko bëggee daanaka da ngay dem ba da nga koy maîtriser. Mhm. comme ni ko mag ñuy waxee dangay dem ba da koy miin xam ay fëllam xam waaw côté yëpp da koy miin ah. mhm. loolu moom ah, en PC ci Pape Thione à part woyu euh, ki nga xamante ni moo di Pape Thione ndax Daouda mën na woy ñeneen woykat yi seen woy. ah bien sûr. ah Daouda mi ay li ngay ëpp li ngay déglu. non damay way wayu ñëpp ah. Mhm. ñëpp sax. Mhm. waaw mais dafa fekk ne comme li ñuy wax rek nit ñi moom am na foo xam ne buñ lay xool foofu foofu rek lañ lay gis. Mhm. mais man polyvalent. polyvalent nga. oui ngay woyal seen woy daal ñëpp ngay. noonu la sori ci waxtaan bi da ñuy may benn wayu Papa Thione rek bu ko defee ñu ñëwaat. waaw dana ma neex lool. ayca kon ñu doxal. mbarodi mbarodi ay mbarodi mbarodi mbarodi mbarodi. bờ rô đi nhau nay ui bờ rô đi bờ rô đi nhau nay ui bờ rô đi jamano sope kunga wow wow jamano sope wow wow jamono looy laaj jamono looy laaj ndeysaan ñi daan saraxe ngi sakkanal ndeysaan jamono metti na ñi daan maye ngi nëbbatu wow wow wow wow jamono looy laaj jamonolooy laaj ndeysaan diw lin sa saaku ceeb bi meew bi seer na wow wow diw lin suukar saaku ceeb bi meew bi seer na wow wow inflation jaal bi rey nañu rey nañu ndeysaan soo bëggee noppalu ci àdduna kaay ma wax la ni ngay def bul xool yow ñi la tànne xoolal yow bu baax ñi nga tànne jàmbu ne boo xëyee war nga sant yàlla sant yàlla war na jàmbu ne sant muhammadu rasulillahi waaye bur yàlla umma malikul mulki وتؤتي الملك من تشاء وتؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك حلا كل شيء خدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحياة من الميت وتخرج الميت من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تساء بيدك الخير انك على كل شيء قدير يلا دينا جلنا دوغال تبير لير دينا جل لير تبير موي بور الله اكبر الله الله الله اكبر يلا يا بور بالله كان رياو jamul ma allah macha allah yaakaar naa ne xol yëpp sedd na ndax ni ma koy faral di waxee saa su nekk ki nga xamante ne nii moo di suñu maam Papa mhm. euh, dem na waaye yaakaar naa li mu fi bàyyi xale bu ñëw di nga ko mën a maanaam di nga ko mën a utiliser ndax parole yu am solo la fi bàyyi daaw da tey bi nga yëkkatee ne der woyu ki nga xamante ni moo di Papa Thione xol yëpp tooy. tey euh, am na ñu bëri ñoo xamante ne nii dañu naan ay parolu Papa Thione xele mënu koo utiliser mais gis nañu wax ji jaakaar naa ne teg nga ko ci heure ak axe. waaw ndeysaan waaw loolu dama koy dégg toujours même man mi tax. Mhm. dañ ma koy wax. Mhm. dañ naa ma naka ngay def ba maîtriser. Euh, Papa Thione ak euh, des fois damay taxaw ak nit mu ne ma carrément man lii nii daf ma jaaxaloon. Mhm. mu ne ma lii nga wax nii. diggante bi dafa ma jaaxaloon lan la ci Papa Thione wax. Mm-hmm. mais yàlla def na ne man bu may diglu musique du ma diglu instrument bi. Mm-hmm. mais maa ngi diglu parole mm-hmm. man toujours bu may diglu musique musique yëpp nag. man li ngay wax laay diglu. lan la ak lan nga ci bëgg a jublu. carrément man loolu laay diglu mais nag mm, comme li ñuy wax chaque jour rek damay faral di wax ne mag du ci ay at. du ci ay at yu bari. ci xel la rek. dama naan bu sa xel yaatoo rek. mag nga. Mhm. comme olof yi sax wax nañ ko xaale bu loxoom setee. mu mën a bokk ak mag ñi ndab. jeex na. Mhm. d' accord tey ñu nga nekk ci li nga xamante ni moo di aar bi comme ni ma koy waxee saa su nekk aar bi nekk loo xamante ni lu compliqué la nga nekk xale nekk ci naka nga koy dundee. waaw comme li ñuy wax saa su rek man ba ma demee ba xam ne yàlla faralut kenn. Mhm. laal le moon samay dëbës. te xam ne man na maa am lu ne ci àdduna. dëgg la loolu waaw parce que wàccewul benn aay wala boog déggaguma ko. Mhm. mu ne damay may njaago bàyyi joola wala damay may joola bàyyi nangam. Mhm. Ah, ku ne xam na ne nag moom adduna mm, ba nga juddoo rek nga rep. Mhm. bi nga juddoo rek nga rep. parce que boo juddoo di nga dëgg la. kon yaakaar naa dara seddu fi mhm. loo dëjmal rek day metti mhm. te dañuy wax ne loo yëkkati mu diis nga bàyyi ko fa leneen loo yëkkatiwaat day diis kon boo yëkkatee mu diis jàppal te xam dina mas a oyof mhm. kon préparé li nga xamante ni moo nekk ci milieu bi maanaam concurrence beeg yooyu yëpp yi si biir yi si biir waaw daaw de moom comme ni ma koy waxee chaque jour rek pare na lépp nee naa sama yoon moom euh, lu ma jaral dama koy def ah, te xàll naa ko waaw lum la jaral. xam nga tamit li nuy faral di wax nee naan bopp bu bëggee am barke nopp yuy déggatee tax. dëgg la te wax bu dofee. nopp yi war a wér. Mm. ay jullit lañ. Mm-hmm. du dëgg. Mm. kon yaakaar naa lépp lu ñu war a am rek dañ koy jaarale ci yoon. ci bu baax bi. Mm-hmm. d'accord sa digganteeg say waajur naka la demee. waa samay waajur de moom duma ci mën a sori. ndax xam naa ne yar nañ ma fi ma war a yare. Mm-hmm. franchement balaa dara xew. dafa am lu olof wax nee na bàyyi jële fa mu war a jële mm-hmm. yaay juge fa mu war a juge mm-hmm. doom juddoo na mu war a juddoo mm-hmm. boo màggee garmi ngay doon ah man jur nañ ma fan ma war a jure yóbbu nañ ma daara ma jàng ñu def ci man yar waaw ah, et cetera. d' accord comme teg nañ la daara def si yow li nga xam te ni loolu la ñu war a def si yow est ce que tey bi nga duggee ci musique bi terewuñ la ko ndax séntu woon nañ xëy na leneen ci yow. waaw eh, lol nag da nga koy gis du bari. waaw mhm. ah, yaakaar naa Sénégal bu doon cent personnes. Mhm. yaakaar naa quatre-vingt-dix yëpp bi ñuy dugg ci musique dañ leen a tere. Mhm. waaw mais man nag franchement loolu dalu loolu dalu la. lan moo lan nga jàpp ne loolu mooy sabab tere boobu ñu leen di tere est-ce que nekkul li nga xamante ni moo ci biir aar bi la. waaw parce que tamit mag ñi dañoo dem ba benn instant parce que da ngay da ngay xalaat ne bu njëkk. Eh, boo daan jàng français nii sax. mag ñi dañ dañ daan wax kii dafa bëgg a bon. Mhm. xam nga li may expliquer dañuy wax kii dafa bëgg a bon pour boo dërëjee sa bopp comme nii ma mhm. def nii. Mhm. dañuy wax ne kii dafa bëgg a bon. alors que li may faral di wax rek nee naa euh, li nit di gën a nit buy sangu du ko summi. dëgg la du ci du ci looy xool nii di ko gis ci moom. mais ci biir lay nekk. li ngay gënee doomu aadama mooy dañuy foog ne genre boo duggee ci ci ci aar bi di way. dangay bon. Mm-hmm. wala wala mën nga dugg ñu convaincre la def la neneen. Mm-hmm. noo xam ne méngoowul rek niñ bëggoon nga mel. Mm-hmm. ak yeneen ak yeneen. man loolu laa ko teg wax nga ko ci say biir wax boo duggee ci aar bi lu ne ngay dégg loo si mos a dégg loo xamante ne nii léegi lu la naqari la. parce que gis nañ deret nga sa bopp bi teg la ay seen teg la ay ay ay yi loxo yi fii takk ba dëgër daal. Mm, man nag euh, lu ma metti du yomb xam nga lan moo tax. lu tax loolu. man dama naan yàlla moo ñu sàkk ñun ñëpp. te moom moo ne maa la gën a jege sa buumu xol. Mm-hmm. dellu ne laa taaxi suuxu sunnatun wala naw ma. Mm-hmm. gëmmuma nelawuma. Mm-hmm. tandaatuwuma. lu ma def xam naa ko. Hmm? te moom moo ne du ne su ma yëgoon duma ma fakkastalu du juum. nit xamut sax luy xew suba. ba bëgg a xam lu xew ci man. kon lolou du ma ko nangu. Mhm. da ngay dégg lu ñaaw nak mom mënul ñak mhm. par force la parce que budul ya yaasuwaasiir aar bi sax fenen benen milier sax da nga fay dégg lu ñaaw. Mhm. parce que lu ñaaw yag na Sénégal. mais limay faral di wax rek nee wax mm, bu rafet bi. du la bu ñaaw bi du la taq mais pour man bi la wara gëna motiver pour nga nek nit moy bu ñaaw bi. bu ñaaw bi lutax lolou parce que tamit euh, bo bëggee dem ci aduna bu diglu ñu naan diglul ñi naan non. mais dafay baax parce que ñoom ñoo lay may jom. Mhm. du ma diglu boo ko déggee du du ma diglu. Mhm. genre yow mi nga xam ne yaa ma bëgg mënuma la yamalee ki nga xam ne bëgguma. Mhm. mënul nekk du dëgg. dëgg la waaw donte waxoo ko sax. mënul nekk sa xol mënul jàpp loolu. mënoo yamale ñaar ñooñu. mënul nekk. moo tax ma ne bul diglu ñu naan wii mais del diglu ñu naan non waxin la quoi. maanaam genre comme comme exemple tey. man boo dikkoon ne ma. doo am dara ci aar bi wax jooju du ma du ma du ma du ma du du ma sonal. Mhm. parce que damay xam ne yow dangay waxee sa xalaat rek. parole yooyu doo ko faral di dégg. non si mais comme nit jàkkaarloog man nii wax ma ko noonu. dañ la koy bind xam nga ne instant yi moom lu waay di def lu nekk dalay dalay fekk. waaw man nag man nag leneen commentaire ko. man nag wax dëgg fa yàlla man commentaire bu négatif li ma koy encaissé bariwul. boo duggee sama compte TikTok yi nga ci xam dara. Mhm. commentaire bu négatif. li ma koy am bariwul. Mhm. mais nag damay wax ne chaque jour booy yi ay ruube lañ ciy jublu mais du seenu bon. Mhm. man loolu laay wax chaque jour parce que nit soxorut. dëgg la nit soxorut. Mhm. nit xol la rek. te xol moom yaakaar naa lu salte waru ca mën a nekk. bu ca nekkee rek dafa am maanaam beneen xalaat bu nekk ci yow. mais pour man nit kese nit rek warul mën a soxor quoi. am na staff. waa si. waaw wow. kii kii mba patatul de kii instant yi dëgër la dëgër na këcc. waaw man nag man nag franchement yàlla moom wax dëgg yàlla dama koy sant. Mm-hmm. parce que moom moo ne ñaanal ma may la. Mm-hmm. nga sant ma dolli la waaw. Mm-hmm. maa ngi ñaan mu may may maa ngi sant mu may dolli. franchement bu ma mënee tënk wax ji daal boobu ba tey. mu ngi may suturaal wax dëgg yàlla waaw. d'accord génnee nga mës nga génne album wala. waaw génneeguma album nag ma album. Mm-hmm. d' accord démb bi ñuy waxtaan nee nga ma am na loo jot defal sa bopp maanaam loo xamante ni du ay waxi Papa waaye say wax la est ce que mën nga ci ñëwaat mbokku internet yi comme ça ñu ñëwaat ci waxtaan bi. waaw loolu leer na ay ci ñu dem. àdduna mm-hmm. ngi nii demal maa ngi ñëw la. àdduna ngi nii demal maa ngi ñëw ku ma yeewoon guddi ci ay nelaw ne ma papa coon dem na àdduna ngi noonu waaye dee du jeex yow waaye dee mënut a ñàkk kollëre ma tuuta fasante kuy war ndeysaan àdduna ngi noonu adduniya kamere je duniya kamere je xalam demoon na bay neex papa coon guddee na adduniya bi daal bés bu ne la jimala def lu baax dee day beeteey àdduna ngi noonu waaye dee du jeex yow waaye dee mënut a ñàkk yow yal na yàlla yërëm Papa Thione Seck àdduna ngi noonu واي كاتي سنغال ياي جالنا لينشون الدنيا بدال اين خاتلا جيمال دفل باخ تايد دي واخل باخ حتى يهيب لآقيه ما يهيب لنفسه آتنا جنونه waaye dee du jeex yow kullu nafsin sayiqatil mawti yow jambi waajalal sa bopp ci saahir ak ci baatin àdduna gi noonu wali balago sekk jale Mohamed Seck jàlle nañu la moomi dani gay jàlle nañu la sunu yaay booy jaga sigindi gale àdduna ngi noonu yow de yow lay waxal yow mi yóbbu papa coon Seck aduna ku ko nalaju ya gudufana juuy guyara fan ak jamu gu yaram lay ñaan sàkkul jàmmu sa digganteeg Gudufana gwer guyara sa bilai gaañi fa kulluhum ayaati yawmal xiyaamati fardan bi may dundu nga may xërëm ma bi ma dëddoo nga may jooyal man xamila saalihan fa li nafsihi yow adduna du sa moroom laa ilay la laaw aduna kamere jee laa ilay la laaw wali balaago seek yàlla na la yàlla may xolu muñ xul walaahu day na xaatima ñaati xul walaahu mu maat kaamil ndeysaan mu yàgg nekk loo xamante ne nii lu neex la nekk ay parolu ki nga xamante ni moo di Papa nga jël say bés daal di ci yokku naka la la dikkalee noonu. waaw loolu de méttiwul. pour man dama naan nit moom boo nekkee ci benn affaire. Mhm. man ko aussi li ci biir lépp du metti ah. mhm. daaw daa mel ni yàgg nga déglu Papa nag. maanaam yàgg nga topp ay mbiru Papa Thione. loolu leer na. Mhm. loolu moom loolu moom. fi neti mm-hmm. am na. Mm-hmm. d'accord mu nekk hommage boo xamante ne ni nga jagleel ko suñu papa papa Thione est-ce que mës nga gis kenn koo xamante ne nii bokk na ci famille muy euh, Wally wala Momy wala keneen ak keneen ce que mës nga leen gis gisanteeg ñoom. waaw non loolu mësul am. mësul am. Mm. est-ce ngi def ay démarches pour gisanteeg ñoom wala. bi ngay ñëw nii ñëpp yaakaar nañ ne ci famille Faramareen bi si seen kër yi ci seen kër gi foofu nga bokk. waaw loolu moom. du fii rek sax. Ah. Mhm. parce que des fois sax da ngay dox ci mbedd nit di la ko laaj. Mhm. voilà mu commentaire la ko waaw. Mhm. des fois sax nit da lay laaj sa tur nga wax ko mu laaj la sa sant nga wax ko sekk mais daf koy jaaxal. ah yow sekk nga sant. ah tek la sante de parce que tamit gis nga aduna mom comme limay wax tak sou rek lu dag lu ne morom je lay fek d'accord mu nek lo xamantene ni lu neex la comme ni ma len koy waxe sa su nek tay ñu dalal ki nga xamantene ni moy Daouda Balago yaakaar na ne gis ngeen plateau bi lim fi def sank ba legi ay jeune talent lañ xalé yi nga xamantene ni ñu ngi yi dafa jot ñu genné len wone len askan bi daal di len gis parce que Daouda mi yaakaar na ne koko ko dooleel mu dem bargo si mbartal la pousse mu dem puusul mu dem ah Daouda tey woykat yi bu ma ci limé ñett ku ci melni ni sek euh, euh Sidi job ak euh, ki nga xamanteni modi moo di Pape Diouf kan nga ci upp ki ngay deglu waaw man nak Papa tion leg Papa tion genné naa ko ci liste bi. waaw man nak man nak mom bu ma wol Papa tion wali lay deglu ah wa Daouda mi nak dedet nak. affaire bi du du ki de bo bëggee bokku ci aar bi do far te yow fim nek ni yaangi far. boo dégluwul Papa Thione yaa ngi dégluwaal yi léegi yeneen woykat yi. Same faruma. yaa ngi far. man demoon naa yi di la bëgg a wan ginnaaw rëy dëkkal maa yi ba nar a yàq suñu diggante bi ma la soxlaa bi ma la soxlaa teew nga mbëggeel ba ci njëkk a ba ca des day na boobee bi bu ma sori di ma weetal man yow laa miin kaay ñu gala yaa beey foog ma xalamal la ndeysaan xale bi jaral na ma man dama leen ko rusoo na wax man mii sax dama leen ko rusoo na wax xam naa ne ñëpp ngay déglu fi mu nekk nii <laughs> waa léegi nañ génn ci góor ñi léegi bi nga xamante ne Titi Viviane kan nga ciy déglu ah titi. titi ngay déglu lu tax choix bi doon titi. waaw parce que tamit euh, macha allah. mais ñoom mm. waaw waxuma kee macha allah kee du macha allah de. Ah, dama moom macha allah. xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga da nga ne ma kan nga ci déglu. kan nga ciy ma ne la titi. Mm-hmm. nga ma lu tax. waaw. moo tax may wax ci titi. waaw waxal ci titi. après boo ma laajee ci Viviane damay wax li ma ci xam. léegi yow waxal ci titi ba pare ma laaj allah franchement moom nit ku ma neex la. Mm-hmm. sama yaay jooju ma koy nuyoo passage. Mm-hmm. Ah, nit ku ma neex la franchement ba pare tamit aussi man su ma ko gisee li may njëkk a gis ci moom mooy charisme. Mm-hmm. maanaam dafa dafa dafa dafa dafa dafa nekk nit boo xam ne macha allah daal. maanaam comme ni ma la ko bëggee expliquer dëgg sax du ma la ko mën a expliquer. yaru na mën na way tey na en plus doo ko dégg ci yu bari. Mm-hmm. maanaam maanaam. macha allah daal waaw maanaam wax yi sax yi bi daal waaw genre xam nga tamit donte euh, artistes yi du ñoom ñooy keree wax mais mm, boo xoolee nit ñi ñooy créer wax. fan si nga bëgg wax. waaw lu ci bari. ñom ñoy kéré wax quoi parce que tamit euh, comme li olof di faral di wax buñ tuddee mbëru jambour sa côté. Mhm. nga mer sa mbeur dafa matul mbeur mhm. mbaa mu di ragal do la ja néew lol mhm. mais bu féké wolu nga sa mbeur buñ doon tuddu téméri mbeur sen côté sax du la déranger. dëgg la man chaque jour damay wax né man lima man la xam. mais li kenen man mom danaka du ma ci sax bàyyi xel. Viviane lan moo tax doo ko déglu. Viviane dama koy diglu si mais ki ma gën a diglu laa la wax Viviane dama koy diglu. parce que fii doo déglu Viviane titi ngay déglu. non non yaa déggul fi may waxee. Ah, dama dama sama sama njëlbeeni wax bu nu arrière nee naa la bopp bu bëggee am barke nopp yi dégg moo cay tax. Ah. waaw parce que tamit nee naa la mm, gis nga ko bëgg koo bañ. Mhm. même doo toog sax di ko wax nii. Mhm. da koy jàpp sa xol maanaam du looy nekk di ko bazarde quoi. dëgg la naan kii def ma neex kenn ma mhm. nangam nangam. damay diglu ñëpp. koo ma woyloo ma woyal la ko fii léegi. ku ma la woyloo nga woy ko. noonu la deme man de kii laa bëgg nga woyal ma ko nu mu tudd sax waa jooju ndaw soosu dañu ëmboon fan yii Rihanna. Rihanna. waxuma la Rihanna Sénégal laa la wax. <laughs> xam nga bu ñuy wax ci fur wi. <laughs> Ouzin Keita xam nga bu ñuy wax ci fur wi. nga bàyyi ko fa dem ci këriñ <laughs> danga may xaw a jaaxal. Rihanna du këriñ. non waxuma la këriñ. dama ne la. bu ñuy wax ci fur wi. Ah. nga bàyyi ko fa dem ci këriñ danga may xaw a jaaxal. d'accord ki demee Amérique. Ah. nga laaj ma ci riana nga bu ñu demee Amérique laa nga laaj ma bëgg nga yobbu dama la bëgg yobbu yóbbu Amérique nga dem voyage fay fay la te diamond eh <laughs> galal rek eggalal eh, rek ma yowale ko man man maa bëgg maa bëgg nga eggale ndax commencement bi Cameroon boy boy ak si mi ngi ne I get I get Dimara ma nekk si mi ngi ne boo ko yemalewul foofu man maa ko yemale foofu d'accord ki nga xamante ni moo di Youssou Ndiaye fan yi moo tey réew mi Youssou Ndiaye xaw ma Youssou Ndiaye fan yi daal borom borom borom kii bi borom bouteille bi fan yi moo réew mi mu nekk nii artistes yu ndaw yëpp randu nañ Youssou Youssou Youssou Ndiaye xaw ma Youssou Dieng daal ñu sant Ndiaye Youssou Ndiaye waa lu mu lu muy def moom musique lay def xale boobu nga xam ne tubaarkàlla fi mu ne boosu réew mi moo ko téye à part mi waaw waaw loolu moom mën naa nekk parce que tamit euh, kooku gise fermé lay woote gise fermé. waaw loolu leer na. Mhm. li may wax chaque jour rek nee naa waar wi moom dafa yaatu. Mhm. te kenn ku ne da nga jaar sa coin. Mhm. yoon yi bari ba doo comprendre. kenn ku ne da nga xàll benn yoon rek. Ah, Arifa Baye wax ja. bu nu yeggee lépp leer. xamante wu leen yéen ñaar. non non xaw ma ko nag franchement maa ngi doog di dégg sax. turam li muy def mën na ko de waaw parce que tamit euh, ñi man bari nañ de. ku artistes yu ndaw yi yépp fu mu nekk ni daaneel na leen. ñi man bari nañ de. ah ñi man. <laughs> nee naa la sama njëlbeen wax sàcc ci ndënd yomb na. Mhm. mais fa koy tëgg moo jafe. dëgg la am talent nii neex baat nii di way. Mhm. lu yomba yomb la. waaw mhm. ah, parce que baat yàllaa koy jagleel nit rek. mais dégg-dégg dafa am solo ci way. d' accord d' accord ñu dugg ci li nga xamante ni moo di point bi mujj bi balaa ñoo tàggatoo ñu dem fi nga xamante ne ni rek mooy waa di mu nga xamante ne ni naqar daa di nay daanu seen kaw démb ci guddi muy moom moo bokkoon ci série bi nga xamante ni moo di série Virginie nekkoon xele ba tamit nekk ci aar bi ñu koy ñaanal rek yàlla na ko yàlla xare aljanay firdawsi euh, suuf oyof ci kawam bi nga yëgee nouvelle boobu lan nga yëg. waaw affaire bu moo tuuse la tamit parce euh, li ñuy wax rek. Euh, tubaab yi damay dégg man nag amu ci lu ma leer. Mhm. Hmm. ñu ne bu xale gaañoo daf leen di jaaxal. Mhm. parce que nee na ñoom xale warul jékki-jékki nii rek di gaañu nii. Mhm. moo tax xale moom dee xale dafa garaaw. mais nag yàlla na ko yàlla yërëm parce que yàlla tamit lu mu def. noonu lu la jaam bu ko xamee noonu noppalu aussi. mais yàlla na suuf ci kawam. waaw et cetera. xamante woon ngeen yéen woon. xamante d'accord moom moo ñu koy ñaanal rek yal na ko yàlla xare àjjana yàlla may ay waajuram li nga xamante ne ni moo di xolu muñ kon euh, ki nga xamante ni moo Daouda dama lay bàyyi rek nga woyaat sa beneen woy le temps que ñuy tëj li nga xamante ni moo di émission bi. waaw ban nga bëgg. est-ce que doo ma woyal waa Wasaare rek. kon ku fi ñëw toog ci plateau bi woy nga leen comme ñoom ñii lañ bëgg ku fi ñëw woy leen. waaw woy leen rek waaw. fari lay ñu waa fariyo fariyada ke ambuyo dule wawa faridalama ñi may bëgg xale yu am jom nangoo liggéey jàpp ci war na ku dimbax xam naa ni man jortu naa ne man gëm naa ne mbax de bu doon keppaar gu nii dalloo waa wasaare ku yendu ci yéen yandoor xam naa ni mbaax bu doon dox mi ni naan ne xam naa ne ku leen naan mandi ku leen ray génnum réew waa wasaare ay xam naa ne baax bu doon alal ku leen seddoo waa wasaare ay nit ñu yaatu ñu yaatu ñu ngi fi ñu baax ñu am yi teggin ñu am yite neen naa la jégué ak ñom waxtaan ak ñom do dégg lu dul baax do dégg lu dul yaru do dégg lu dul yaatu do dégg lu dul am diiné lislaam loolu la macha allah waaye nag dafa am lu ma bëggoon ñaan wa bëggoon ñaan parce que tamit bi may dugg ci dama romb sama Ben way mm-hmm waaw kooku bëgg naa ko may dara ci sëñ Bamba. wilaay may ko dara ci sëñ Bamba. waaw mu mu mu mu mu xam ne ñun moom daanaka. fii loo ko mayul rek ci yow la. fu ñu dugg rek nga foog ne foofu la. yow yaa dugg ci Rihanna. ah boo ko duggul foofu ma xam ne ci yow la. yalla bil Mustafa. wa bi khalilika إبراهيم رايم يا الله بالمصطفى سندي الله وبي وبخليلك إبراهيم يا الله وبخليلك وبي سهي بن وائس ما هي لي الله وبي سليمان نو يا ساهل وساكري يا آية يا يا الله هارون يوسف خائل ada Budan wa Sikif lahi فلاهي سالو الله jërëjëf Serigne Touba <laughs> nekkul si woy yi kese nga mënee Waye mën nga ci béeboor mën ci béeboor comme niko ko yi di waxee Dawda naa la bàyyi nga tagoto yaakaar naa ne li ñu cërale ci ay waxtu mu ngi daal di xëccu jëm waaw door salaamaaleykum fin maaleykum salaam. Mm-hmm. waa nee naa maa ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp ah di kontaan ci ñëpp ah. Mm-hmm. waaw kay waaw di kontaan ci yéen. surtout di ñaanal tamit Sénégal jàmm yàgg fii ñi nga xam ne caabi féete na leen yàlla dimbali leen ba nu génn ñi feebar yàlla fëgg seen bopp. et cetera waaw yàlla jàmm yàgg ci Sénégal. ak àdduna merci beaucoup Daouda amoon nañu mbégte ak kontaante bu baax a baax dalal la ci li nga xamante moo di plateau bi yaakaar naa ne li nga fi def nii moom macha allah comme ni ma la ko waxee sànq rek bargo si mbartal la puus mu dem puusul mu dem di gërëm ki moo di suñu ménagère ah mama koddu tàkko bu xam naa bu ko gisee dina ma kii mais mama tàkko merci beaucoup. parce que parce que man dama ko fàtte waale gërëm sax ah, parce que ah, ah. Euh, gars yi ne ma ñëpp jéggal nag mm-hmm. maa ngi gërëm ñëpp mm-hmm. surtout mama tàkko ah ak sama yaay jooju noonu Adja Nday waaj a mm-hmm. waaw kay. yaa nga ca biir. d' accord jaajëf Daouda merci beaucoup sama caméraman yi di leen jox rendez vous ba beneen yoon incha allah ak beneen émission Samay Star ak si sa benn séeréer bu nice jaajëf. mun waa ku xam yoon waa daas bu nekk pexem waaye wasaare ma ngeen yuri kuudu ba léegi làqu leen boobu saakul tabaxoo ko toj ko mën na laa jafe wa TV xoolal bu baax boobu saakul na laa jafe moo tax na kenn du leen tee di dem ni naa leen macha allah da ngeen di dem. kenn du leen tee da ngeen di dem ni naa leen macha allah da ngeen di dem ni naa leen macha allah da ngeen di dem